ña ngi ko xamee ci réseaux sociaux yi gën ko ràññee it ci live ya muy def di ci biral jafe-jafe yi couple di jànkonteel Nabou Dash daal dinay tas na mu ko xamle rek ci publication bu mujj ci Facebook bi gannaaw ba mu ba noppi rek xamal na leen rek tas na ak monsieur Fall moo jël nag ndogalu dem te dara ñaawul Njaw Fall magam la te moom lay mës a doon Nabou Dash jaajëfal na ko ci atu mbëggeel ya ñu dund di ko wax ni amula fayam gërëm na itam waa kër gorom ba ci njëkkeem ya rawatina gorom ba mer Niang moom ñu wax ni rek mbëggeelam ci moom du mës a dëñ